ak yeneen ak yeneen yu mel noonu yoo xam ne yu am solo la ndax yàgg nañ cee àddu ba askan wi yëpp xam lu ci suñu position te luñ ci wax rek teg nañ ko ci xam-xam ak ci ay document ak ay chiffres yu leer defe naa kuy Sénégal rek xam nga lan mooy mbébétu Yewwi Askan Wi ci réew mi te mbébét boobu dañ koo dañ koo lal d'abord ci càmbar gi ñu càmbar réew mi nu ñu ko yoree ci yorin gu bon ba mën a wax sénégalais lan moo tax tey mbay mi suuxe napp gi suuxe càmm gi suuxe industrie suuxe ak yeneen ak yeneen te loolu mooy réew réew du ay tali ak ay stade réew koom-koom la d'abord koom-koom mooy meññ loolu boo ko amul koom-koom googu boo ko amul ba mu mun a meññ loolu dangay jël say ab yoon di wër rek di leb ba tey daanaka leb nañ lu ëpp lañ ñu mayoon ñu war koo mun a leb kon tey du ma sori ci loolu donte ci sama conclusion dinaa ci wax as tuut li may gën a waxtaanee ci ak yenn mbokk yi mooy tolluwaayu réew mi ndax sénégalais bu nekk fi mu toog nii xam na réew mi fu mu toll ak li nga xam ne mooy liy yoot réew mi léeg-léeg dinaa toog xaw see am tuuti sikki sàkk ni peut-être am na lenn ci sénégalais yoo xam ne xamaguñu tolluwaay réew mi ak li nga xam ne mooy ay danger yoo xam ne ma ngay raam walla yegsi na sax tey nag ci loolu rekk laa bëgg a waxtaan ci benn ci poñ yooyu mooy li nga xam ne xamuñu ko woon ci réew mi walla du woon loo xam ne dafa lalu rekk toog ñu koy gis bés bu ne réew mi yàgg na am jafe-jafe réew mi ab yàgg na am yëngu-yëngu waaye li ñu tàll tàmmoon di xam mooy ci ay jamono la daan am waaye ñëpp dañu jàpp ni Sénégal réewu jàmm la ñu am lu rëy loo xam ne ñi ñu jiitu ci réew mi def nañ ko ci mooy ci wàllu diine muy ci wàllu politique ndax nag réew mi ñun dañoo ñëw fekk ko fi dañ ko doon danañ ko doon fekk ko ci jàmm loolu dafa am ñu ko dox ñu ko liggéey ci wàllu politique ñi njëkk a jël politique ci réew mi ba ñu jox leen indépendance da seen yitte bi gënoon rëy mooy nu ñuy def ba tabax li ñuy wax nation nation ak état bokkuñu nation mooy nit ñi ci seeni waaso seeni xeet seeni gëm-gëm yàlla def ñoom ñëpp ñu bokk benn déew nu ñuy def ba ñoom ñëpp nag ñu ñu ñu ñu am bennoo état nag mooy li nga xam ne moom lañu teg pour mu doxal ñaar yooyu bokkuñu seen yitte bu njëkk mooy woon nu ñuy def ba tabax nation ba kenn du fi tudd xeet wala diine wala région boo dëkk wala yu mel noonu seen ñaareel yitte doon nañ tabax état bu dëgër boo xam ne day dox ci ay règles ñu xam ni lii mooy état nii lañ koy doxalee fii la yem lii nga moom lii moomoo ko lii mooy sa sañ-sañ te loolu def nañ ci liggéey bu rëy rëy rëy kenn neewul mat na de waaye bàyyil nañ fi héritage boo xam ne bari na réew bu ñu wërta amu ko ci nation ak ci état jamono jii nag danger bi gën a rëy bi nga xam ne mooy yoot Sénégal mooy yooyu lañu ñu yàq nag moo tax ngeen dégg ñu naan ceeb bi fa surfacturé nañ ko ci loo xam ne dañu ne woon pour pour xettali Sénégal la ci feebar bi bañ demee président Sarr bi ñu recevoir ni fàttali ku leen sama discours bi ma génnee nee na li ma leer ba leer mooy coowal séddoo séddoo bu jaarul yoon dina am ci ceeb beeg diwlin beeg yeneen a yeneen nee nañ leen lu ñu leen mës a wax jamono dox na ba ngeen teg ci seen bët. vidéo yaa ngi fii gis naa xale yi di ko partagé loolu moo tax tey ñuy wax ay problème contrat armement ndax dañoo jalgati ni nga xam ne noonu la réew di doxee noonu lañ fi bàyyi woon charte yi. lu ñuy commandé dafa am fu mu war a jaar ñu bàyyi ko fi dem ci leneen loolu moo indi milliards yi ngay dégg ci jël nañ ko fii jël nañ ko fële tey ñu ne la Prodac suba ñu ne la 94 milliards gannaaw suba ñu ne la kenn xamul réew mi waaye bi ci gën a garaaw mooy violence permanente fitna bu sax daa iman boo xam ne tey Macky Sall sa saxal na ko ci réew mi te juble juble jubla ci nag képp koo xam ne nee nga bokk ma ak moom gis-gis ak pas-pas fitna googu violence boobu ma ngay màndargaloo d'abord ci li ñuy wax violence verbale parce que fitna bi gën a métti dal bi gën a métti ci li ñuy dal ci nit léeg ci làmmiñ lay jóge làmmiñ ndax seen deret seen der seen réputation kenn ku ne bosu moroom dafa sacré ci moom tey rek ngay dégg Sénégal fi ñu toll nii nit mën a dem tele wala rajo dugg ci vie privée jàmbur wax ci lu bon a bon a bon a bon bon loolu mosuñu koo xam Sénégal du suñu aada du suñu diine du suñu état moo ne soo jëlee code pénal lañ ca bind ci lu lu jëm ci loolu kenn xamul nu mu toll procureur rek bu defoon liggéeyam kenn dootu ko def kenn dootu ko def jamono ji rek nga ñeme gis ku dem taxaw ci télé ci rajo ne rey leen diw procureur ne sama yoon newu ci te jamono jooju xale bu génn piblier sur Facebook ñu ne la ñëpp dem dem tëj publier ay reetaan reetaan émo émoticône lañ koy xaw ma nga piblier ko ñu jël la tëj la kaso. te li gën a suuxat village boobu mooy impunité bi ma wax mooy soo tafoo ci Macky Sall ku la neex saagal. ku la neex xasal ku la neex waxal lu bon ci moom dara du la ci fekk ñaareel màndarga violence boobu muy violence buy exprimer wu ci lépp loo xam ne neexul Macky Sall violence bi muy exprimer par exemple ci collectivité locale barki démb bi muy muy def sa journée la politique dafa ne moom la soob mu téye les fonds de transfert loo xam ne constitution ak loi moo ko fi teg ne état bi comme moom li muy dajale da koy dajale ci collectivité locale bu ne muy TVA bi muy impôt sur les muy beneen l'impôt am na ci loo xam ne dañ ko war a delloowaat collectivité locale yi loolu du sañ-sañu président mu naan maa koy téeg maa koy joxe rien rek que pour métital collectivité locale yi te soo métitalee collectivité locale xamal ni du maire bi nga métital de ndax moom am na dépense waaye li waroon dem ci askan wi ngay xaj askan wi la waroon defaree télé euh, tali wala ñu defar ko poste de santé yi wala école primaire yi ñu jox leen seen fourniture nga téye ko ngir politique rek parce que nee nga yaa ngi xeex Ousmane Sonko wala yaa ngi xeex Barthélémy Dias wala yaa ngi xeex Adama Sarr wala yaa ngi xeex Yankuba Diémé loolu ban est-ce que am na lu ko ëpp ci violence wala ay sénégalais yu am sañ-sañ. ñun dañu am loi boo xam dafa ne liberté d'association tey presse bi am ngeen benn syndicat mais saa su leen neexee yéen ku mu neex ci yéen ngeen jóg ni dañuy créer suñu syndicat yoon moo leen ko may la preuve sax am na am na association yu bëri dañuy dégg Sempix dañuy dégg CAP dañuy dégg keneen ak keneen mouvement citoyen yi ñaata la woon ñi ko fi njëkk a lancé benn la woon tey ñaata mouvement citoyen ñoo am société civile ñaata la woon ñaata am. parti politique benn fi amoon Sénégal benn tey ëpp nañu trois cent et quelques partis politiques centrale syndicale CNTS lañ fi xamul ñaata central am c'est la liberté d'association kenn ku ne am nga sañ-sañ ne man ak diw ak diw bu ngeen matee ñett rek am ngeen sañ-sañ ne ñun de ñoo ma ko gis-gis ña nga sañ suñu association mu ñeme taxaw ne fii benn association moo fi am amul rectifié suñu neexee ñu def association maire kese yoon moo ñu ko may te ñuy dalal xelam nag association bi am na de te munu ci lu toll ni tarfata ayn mais loolu lan moo ko gën a rëy ci violence ak ñàkk xam lan mooy attribution président la république inculture d'état bi nekk ci président Macky Sall musul am ci kuy président ci Sénégal Habib dafa wax problème mu bopp man dama jàpp ni ñàkk xam-xam la parce que saa su génnee ci feuille bi ñu ko bindal war a taxaw rek wax dina wax lu ëpp walla lu matut loolu ñàkk xam-xam la xam nga nguur mun na dab nit nguur mun na dab nit kii nag nguur da koo dab moo tax tuutil munta mulka man tasha daal nañ ko gëm rek loolu nañ ko bàyyil yàlla rek menace ak violence sur les mouvements citoyens ñaata mouvement citoyen lañ fi jàpp seeni leader parce que manifester nga rek wala wax nga lu neexul gars yi rek ñu ne rëpp ci kaso bi sur la société civile même société civile muccatul fii la ku jiite société civile wax ci émigration bi ñu ne ko rëpp yóbbu kaso menace sur la société civile wala violence menace et violence sur les réseaux sociaux parce que jàpp na ni li mu bëgg am peut-être ci média classique yi am na ko ba mu des média am na média yu bëri wax dëgg yàlla yu nekkul ci loolu waaye jàpp na ni am na loo xam ne mënul am contrôle ci loolu mooy réseau sociaux nee na sax day déposer un projet de loi sur la table de l'Assemblée nationale pour les réseaux sociaux defe naa loolu Égypte laa ko fi dégg ak Chine ak les pays du Golfe ak te ñooñu ñëpp kenn mënul ne démocratie la gisuma benn pays bu ñuy woowee démocratie boo xam ne tey yaa ngi naan da ngay naj nit ñi ci réseaux sociaux violence sur les médias médias en tant que groupe tey am na ay groupe yu am ay problèmes yoo xam ne ñu ngi leen def lu ne te pourtant def nañ fi ay loi d'amnistie teggil group group médias yi waaye menace également sur les journalistes qui pratique te li xew tey ki ñu bàyyi tey wane na ko te li ko yóbbu ci loolu gannaaw seen seen farlu ak askanu Sénégal li mu jël fitam daadi xeex moo tax ñu bàyyi ko li may wax nii dafa am solo parce que Cheikh Ahmed Tidiane Youm dafa ne sénégalais yi dafa fàttali waxu kilifa diine ne léeg-léeg ak ni ñuy wëlbatike wëlbateewu ci information bi sénégalais yi duñu gis ku fayu ñoom duñu gis ku ku tooñ bis bu ne Macky Sall mu ngi ñuy def violence sénégalais yi duñ ko gis wala duñ ci wax waaye il suffit ñu yëkkati suñu baaraam rek ñu ne violence bi ci ñun la violence sur les députés de l'opposition députés yi toog mën nañu seede ne bi ñu ubbee assemblée nationale ba léegi dégguñu leen neex assemblée man mii di wax xam naa ci dara honorable Déthié Fall xam na ci dara assemblée da nga fay dugg ñu lay daggal ay saaga ci say wayjur ba keroog ngay génn assemblée nationale te doo mës a di député opposition bu fa saaga da ngay dugg assemblée ba ngay génn bu njëkk ba commission lañ ko doon def suñu ñëwee nag euh, plénière ñu yuuxu mais léegi journalistes yi couvrir sax da ngay toog biir biir plénière dégg ñuy saaga assemblée nationale te amul kenn kuy saaga lu dul député bennoo Bokk Yaakaar violence boobu lan moo ko gën a rëy. saaga nit ci ay waay waajuram saaga nit ci kilifa diineem saaga nit ci vie privée saaga saaga saaga parce que balaa ñuy egg sëñ Moustapha si man amul lu ñu ma waxul foofu waaye man duma kilifa diine mën naa nangu yenn yi wàññiw ma daf maa yokk est-ce que sénégalais dinañ jóg taxaw ñu def benn motion sénégalais ne bëggatuñu député bu ñu yónni yóbbu assemblée nationale mu fay saaga loolu mooy premier élément bi loolu ñu seetaan moo indi lii may wax nag ni ñaari ñaari groupe dinaa waxtaan ak ñoom ba ci njëkk mooy ku ñuy wax CEDEAO CEDEAO lu yàqu ci Afrique de l'Ouest moo ko yàq CEDEAO nañu yem seen place waa ji jël na avion dem fekke leen foofu ñu def seen syndicat chef d'État def seen délégation ñu naan des députés de la CEDEAO ñu ngi ñëw lu seen yoon balaa may dee ñu naan léegi dañuy créer benn force militaire contre les coups d'état yow doo wax ci troisième mandat lay àndi coup d'état yi doo ci wax doo wax ci troisième mandat doo wax ci xaalis ñuy détourné ci réew mi ci réew yi doo wax ci ñiy jël seeni armée ak seeni gendarmerie di rey ay nit nga ne léegi suñu askan di taxawee ba ne bëggatuñu ñooñu yow da ngay andi force force boobu lu muy def day ñëw xeex ak askan bi waa CEDEAO nañoo yem seen place ñun soxlawuñu seen i leçon ban président ci ñoom mooy exemple bu ñu mën a joxe fi mu toll nii bañ naan ñoom dañuy ñëw joxe Alassane Ouattara exemple moom exemple Macky Sall exemple ak keneen ak keneen kan moo ci exemple banaan def ñuy jox leçon les affaires intérieures et politiques du pays du rôle CEDEAO dañu yem seen place ñaareel bi tit may lancer appel au mouvement de défense des droits des femmes ñun ñii ci la bokk man bokk naa ci mouvement de défense des droits des femmes dafa am yoo xam ne amul rapport ak des violences faites au femmes am na ay jigéen yoo xam ne ñi ngi xeex xeex boobu depuis des décennies tout le monde les respecte dans ce pays ñëpp ay kilifa lañu ay responsables boo taxawee ak ñoom seen jàkkaarloo ñoom xam ni nit nga taxawal. jigéen ñooñu xam nañ ni ñoom kenn du leen yóbbu assemblée nationale ne leen yow saaga laa la sant ñoom waruñoo nangu ñu dévoyer seen lutte ñu yàq seen xeex daa di jël bugg a làqatu ci affaire défense des femmes ne femme léegi elle est ba tax nag moom mun nañ ko def moom mooy dem def lu keneen ñemewul def mooy saaga mooy complot contre les gens mooy xaste lu ne moo koy def après ñu ne jigéen la loolu ça va desservir la cause défense des droits de femmes dafa laaj ay femmes yu am dignité comme toutes ces braves femmes qui son battues pendant des années qui sont sur les plateaux de télé à défendre les causes des femmes qui son sur l'international qui ont acquis des des avancées significatives te boobu jamono amuñu woon sax assise bu ñu war a am parce que ñëpp xam nañ ni entre l'écrasante majorité des femmes surtout rurales et cetera ak ñiy mëne combat bi dëgg dëgg dëgg léeg-léeg mun na am problème mu niveau kon ñu leen di woo ñu xam ni saa yu amee nañu ràññeetle c'est pas parce que jigéen moo nekk en cause rek immédiatement some de dedans mais nañu xool mbir mi ni mu demee yépp ci yoon comme ci yàlla góor dina tooñ jigéen dina tooñ ma teg ci violence ba léegi di yégal sénégalais yëpp nag di araftu ne leen Macky Sall mi ngi ci tànku bëgg nangu ay mandat Barthélemy Diaz te xam ngeen ni duñ ko nangu ma nga ci tànku ak ni muy instrumentaliser toujours la justice bëgg nangu mandat Barthélemy Diaz en tant que maire de Dakar et en tant que député à l'Assemblée nationale xam nga askan wi moo xool ba ne Barthélemy doy na ma ñu ne ko kii assasin la mu ne la bëgg naa kii lii la kii la le mu ne la bëgg naa moom moo ma doy pour ma jox ko Ndakaaru ñu dellu si mbër mbër mbër doy na moom moo ñu doy pour ñu mu mu ñu jox ko député Ndakaaru mu demal ñu assemblée nationale kooku kenn warul am sañ-sañu ñëw tey ne da koy nangu loolu ci violence yi nga xam ne Macky Sall mi ngi koy exercer mu ngi koy waajal nag la ñu teel a araftu bokk na ci complot yi nga xam ne bis bu ne ay officine am ñu ngi koy def di ko préparer di xool nu ñuy comploter opposition bi bi ci gën a fës mooy bi ñuy coowtaay yi dem na ba mu wëlbatiku seen kaw nag ba tey seen dossier la man dootul sama dossier damay toog rek di seetaan di reetaan seen dossier la te ma wax ni Macky sal moom ci boppam moo mu ngi ci diggu complot bi tey ki def déposition wax na ko waaye li gën a neex yow soo dee président la république gardien de la constitution garant du bon fonctionnement et la bonne application de la loi ñu jox la rapport d'enquête interne de la vente de la gendarmerie bu ñu bind ni procureur mi ngi ci complot bi def na léeg-léeg lii commandant diw def na léeg-léeg lii soo dee dëgg-dëgg président de la république da nga war woo ministre de la justice ne ko yéetal lii procureur te nekkoon a teggi tànkam nga jël rapport bi di ko nëbb di ko nëbb di ko nëbb ba yàlla feeñal rapport bi ci beneen anam loolu c'est de la haute trahison dootul sax complot c'est de la haute trahison que Macky Sall a lan moo gën a ëpp loolu violence parce que rek nee nga kii ragal naa ko kii sama opposant la kii il faut ma liquider ko nga jaarale ko ci loo xam ne haute trahison la bu garaaw a waaye violence boo xam ne da nga koy jaarale ci force de l'ordre ak justice force de l'ordre ak moo tax bi fi li fi xewee daaw xew mu jaaxle ba dem làqatu ci gannaaw kilifa diine yi Cheikh Tidiane Dièye ngi nii m 2 kilifa diine yi am lu ñu sàkku ci ñun ñu nangu leen ko ku fi nekk rek fii ci salle bi ak ku ñuy déglu rek jàppoon na ni bu ñu génnee ci loolu Macky Sall dina nite Macky Sall dina jàngat ci li xew ba daal di feeñal beneen Macky Sall boo xam ne day nekk kilifa goo xam ne day nekk au-dessus de la mêlée ñëpp loolu la ñu yaakaaroon kilifa yi mu ñaanoon sax li ma gëm man ba gëm ko gëm naa ni tey am nañ ñu leen bett parce que jàppoon nañ ni fa la ñuy jóge mu ubbi beneen page xool nu muy rafetalee demam xool nu muy rataxalee di diggante yi xool nu muy effacer yenn tolof-tolof yi nga xam ne def na ko ci réew mi waaye nee naa loolu mënuloon am ngir ñaar ba ca njëkk mooy nit mooy xol mooy nit xol mooy nit waaye bu dee xol mer fayonte defante lu métti rek moo ci nekk bu luy amee nga ne gàcce la ak defet la yaa ngi dem waajal noo jëlee sa ñaareel bi mooy obsession pour le pouvoir ak troisième mandat li ma wax nii lu koy firndeel lu simple la bañ ca génnee dafa gaawantu dem jëndi ay gànnaay parce que moom jàpp na ni suñ ko jekkoo gànnaayee matuloon moo tax ndax inaar n'a rien compris réew yi fi ëpp gànnaay ba bés ba askan wa jóge ne doyal na muy Égypte muy Algérie première armée presque d'Afrique muy Tunisie muy libi muy feneen ak feneen Soudan askan bu jóg taxaw ngannaay téewu ko gendarme téewu ko policier téewu ko ñàkk xam-xam weesuwul lool waaye ñëpp dégg ngeen ak gis ngeen li mu jënd ci ngannaay lu xew ci réew mi rek mu gaawantu génne fépp nag parce que foog nañ loolu day fees bëtu nit ñi ba dootuñu ñeme ñaareel bi mooy mu dem jëli ay nit nome leen parce que jàpp na ni ña nekkoon ci bopp gendarmerie bi ak police bi matuñu woon peut-être wala defuñu li mu bëggoon mooy nañu tiire ci askan wi mu dem it ñoo xam ne jox nañ ko garanti ni ñoom dinañu réprimer ñetteel bi mooy mu dem bindaat ay loi daaw yéen gis ngeen yëpp mu andi fi benn loi sur le terrorisme normalement su ñu defoon manifestation léegi ñun ñëpp terroriste lañu renforcer arsenal juridique bi ñeenteel bi mu dem ba yokk périmètre d'intervention de certains corps militaires pour ñu mën a intervenir même dans la ville dans la vie loolu yëpp nee na ma ngay waajal boppam ci xeex loolu yëpp ma ngay waajal boppam te bañ a jël en compte nag li nga xam ne xew na fi ci diggante bi may fàttali sénégalais yi nii Macky bi mu fi nekkee léegi ma wax leen ñi nga xam ne faat nañ leen te ba tey enquête amut faat nañ leen li ma wax ni dafa am solo de. faat nañ leen te amul Fallou Sène Bassirou Faye Kékouta Sidibé Dominique Lopi Matar Ndiaye Elimane Touré El Hadj Thiam Mamadou Ndiaye Abdoulaye Wade Yengu Ibrahima Mbow Abdoulaye Timéra Lamine njaay Seck Ndiaye Mariama Sagna peut-être enquête am na de waaye ba léegi leeralaguñu mbir mi ne ñii lii moo leen rey te ñi ci ëpp nag manifestation lañ leen rey université place de l'Obélisque euh, Kër Massar feneen ak feneen lii tuutiwul de assassinat politique la mars 2021 fukki bat baat fukki bakkan ak ñett daanu fi Cheikh Wade Baye Cheikh Diop Cheikh Koli Famara Goudiaby di mbay Mbaye Cheikhouna Ndiaye Sadio Camara Mansour Thiam Moussa Dramé Alassane Bari Bourama Sempassane Chérif Abdoulaye Mané ak Massiré Gueye mu taxaw fii ministre de la justice am wala des forces armées annoncé ni dañuy taxawal une commission d'enquête pour mu leeral lool ba tey ba sànq commission d'enquête ñëwul pourtant rapport département d'État bi génn fan yi nee na ñoom au moins sur les treize les dix gouvernement Sénégal moo leen rey c'est les forces de l'ordre ci lu leer nañ kon ñu jàpp ni c'est des assassinats de Macky Sall te nañu wax suñuy député ñu taxawal commission d'enquête parlementaire sur les assassinats parce que dafa jot juin 2022 ñu téye suñu list ci lu dul yoon depuis juin ba léegi premier et manifestation yi liste yi la ñu rey ci Abdoulaye Diatta Idrissa Goudiaby ñu saax-saaxe ko ne bal reyu leen ñu lànk ne dinañ def contre expertise contre expertise bi ñëw ne bal moo leen rey ñu ne procureur bi nee na na dossier bi à un juge ba léegi dégguñu ci dara bal moo leen rey te li leer ba leer mooy bal bi ña amoon ay ngànnaay jàkkaarlook ñoom te doon tiire force de l'ordre yi bi ci mujjee mooy rey nañ fi François Mancabou ci anam yoo xam ne ba léegi leerul xëy nañu ñoo ko jël mu wér kéng di di di aw waxambaane bu am kattan yóbbu ko xamuñu lu ñu def ak moom mu mujjee hôpital ba noonu la jaare ay mbokkam ne dañ koo rey ay avocat dugal ay procédure ñaar rey nañ fi Fulbert Sambou wala ñoom seen nit taxaw na ne moom confirmé na ni Fulbert Sambou dañ koo rey ak sax Didier Badji donte gisaguñu kooru Didier Badji gis nañ bu Fulbert Sambou ñoom ñoo taxaw ne dañ koo rey kenn ci ñoom wala ñaar sax leeralaguñu loolu ba léegi boo dajalee lii rek ëpp na trent personnes yoo xam ne ci nguuru Macky Sall faat nañ leen sur des bases politique te ba léegi kenn leeragul kon su wax violence kan la ñuy wax Macky Sall la wax lii musul am senegal ci diir bu gàttee ni soo jëlee ci wàllu nag justice ñaata nit la ñu jàpp tey ci lu tegul yoon ay otage politique ma limal ma limal leen Abdou Karim Gueye Outmane Diagne Cheikh Omar Diagne te li gën a neex mooy léegi bu ñu leen jàppee démb ak keroog Pape Alé keroog bu ñu koy déglu ak démb bi ñuy déglu ñoom usmaan Diagne xam ngeen juge sec lu mu leen wax lu mu leen laaj woy xam nañ ni da seen seen diggante seen jegeñaale ak Ousmane Sonko léegi loolu mooy crime ci senegal ku xamante ak Ousmane Sonko wala nga jeg juge war naa taxaw ci kanamu nit naan ko waaw sa proximité ak Ousmane Sonko loolu crime la wala délit la wala lan la bañ ciy jàpp nit Abdou Karim Gueye Ousmane Diagne Cheikh Omar Diagne Papito Kara nga xam ne lan la def publication fait kii ñu jàpp ko publi publier ñu ne dafa imiter beneen journal nee nañ journal bi porté wul waaye procureur moom ñëw na ko jël si Amidia ñu koy boole ci ay farce spéciale yu ñàkk fayda jël benn mère de famille téye ko boobu ba léegi moor Gueye Assane Dramé Ibrahima Diédhiou Abdoulaye Ndiaye Babacar Ndaw Pape Ousmane Seck Pape Mamadou Seck Madické Diop Abdou Silla Bouna Ba Yaya Cissé Ndeye Sassoum Ndaw Pape Alé Niang qu'on vient de libérer Ndongo Diop nga xam ne liñ ko doon jàppee ne dafa doon filmer rëbës jour sama jour audition ñu ne dafa doon filmer rëbës ndongo Diop Fadilou Keita te kook du ndomb Diop sax comme dañ la benn la ñu jàppee loolu ndongo Diop Fadilou Keita parce que nee nañ dafa publier ci affaire u DJ te nit taxaw de ci télé ne dañ ko rey xam naa ko ba léegi procureur woowu ko waaw 21 personnes 21 personnes tey ñi ngi ci loxo Macky Sall prisonniers politiques lañu lan moo gën a violent lii te ñu war cee wax ci réew mi kon li may daanelee ñaar ba ñett la bu njëkk mooy maa ngi waxtaan ak magistrat yi nañu xam ni gannaaw yàlla mi nga xam ne lu ñu àtte dinañ ko layaat ci kanamam la ñu nekk ñun comme réew mu laïc lañu dañu ne la justice est rendue au nom du peuple mooy ñoom ci turu askan wi la ñuy àtte waaye ñu bëri ci ñoom dañ koo fàtte jàpp nañu ci turu Macky Sall la ñuy àtte am na benn magistrat français bu mag a mag a mag dafa bind benn livre waaye livre bi phrase moo ci gën a jàpp dafa ne magistrat au moment bu mu jël sa dernière décision dernière dernière pensée bi muy am mooy sa carrière moo ko bind de nee na la dernière pensée d'un magistrat au de prendre sa décision c'est sa carrière ana yàlla ana askan wi ana dëgg kon nañu delloo ci seen xel te ñu mayante doole ñoom parce que yéen journalistes yi fulla bi ngeen am ci seen biir corporation ñoom dañ ko war a am waruñoo bàyyi benn juge mu wéet ci décision am ba nguur war koo mun def pression ba mag Macky war koo mun a def pression ba ñu war koo mun a jënd wala ñu menacer ko ba dootul àtte selon son intime conviction nañu xam ni askan bi leen teg foofu reconnaissance askan boobu rek la ñu mun a am ba léegi ñu ngi tudd Kéba pour pourquoi ñuy tudd Kéba Mbaye pour ay actes yi mu posé ak discours mémorable bi mu wax fii ci université de Dakar loolu mooy reconnaissance nit ku nekk nag ci liggéeyam nga dem ba nekkatoo fi ñu lay tudd di la tuddee ay amphi di la tuddee ay salle parce que da ngaa matoon li ngay def te xam ni lépp nit ñi dañuy am responsabilité parce que député yi ñu jàpp nii ñoom mën nañ ci am responsabilité article 12 code pénal lan la wax seron coupable de forfaiture et punis de dégradation civique tous officiers de police judiciaire tous procureurs généraux ou procureurs de la République tout substitut tout juge qui auront provoqué donné ou signé un jugement une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation d'un membre de l'Assemblée nationale sans les autorisations prescrites par la loi de l'État ou qui hors les cas de flagrant délit auront sans les mêmes autorisations donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs membres de l'Assemblée nationale kon ñoom seen responsabilité ñoom ak policier ak keneen ak keneen c'est engagement ah c'est pas parce que jox nañ leen ordre rek ils n'ont pas le droit d'arrêter ces gens-là te ces responsabilités là on les mettra en branle en dehors des autres formes de lutte ñaareel message bu ma bëgg a lancer ma koy lancer euh, les Sénégalais mooy il faut que sénégalais bu nekk retrouver sa capacité d'indignation gis nga injustice lenn rek moo koy suuxat am na proverbe bu naan l'injustice se nourrit du silence des vertueux ou quelque chose comme ça injustice lu koy lu koy suuxat jaay doole lu koy suuxat mooy ñi war a taxaw yépp ne lii du dëgg daal di daal ci noppi wala nga ne tant conserne concerné rek sama yoon newu ci nañu jëlaat suñu responsabilité nañu assumer ni dañoo war a xeex ngir dictature bi Macky Sall bëgg a teg fii bu mu fi am parce que Macky Sall daf ñuy yablu sax ci américains yi est-ce que président américain am na sañ-sañ ne sama troisième mandat ça ne dépend que de moi constitution amérique nee na ñaari mandat de quatre ans la bu jeexee demal est-ce que tey Barack Obama amoon na sañ-sañ ne man déedéet ça ne dépend de moi je loolu su ko waxee sa américain dañuy yablu dañu naan ñii duñu réew parce que benn waay mooy décidé ndax moom day nekk candidat wala du nekk candidat li muy wax da koo xamul parce que je crois que problème niveau la du problème mu bopp de problème niveau la noo mën a dem ba États-Unis ñoom xam nañ ne ñun am nañu constitution te constitution bi dafa limiter moom de mandaay yi ngay leen askan wa 17 millions de sénégalais yëpp seen yoon newu ci ça dépend de moi. mu ngi ñuy yablu mu ngi ñuy xeeblu moo tax sénégalais yi laa bëgg ñu dégluñu ci lenn boobu ba léegi Macky Sall mi ngi def ñun ñu ne tekk du ragal de dañ ko teg ci lu bëri fitna dañ koy moytu yee yonent bi alayhi salaam nee na fitna ngi nelaw yàlla rëbb na ku ko yee alquran nañu moytu leen fitna goo xam ne du yem ci bopp ki ko yee moom don ku xam fitna doo dox jëm ci fitna loo tax ñu ko doon moytu waaye yàgg naa wax fii ni ay yonent sax dem nañ ba xam ne fitna ji ëpp na doyew ñu jàppaarloo ak jàmmarloo ak fitna googu parce que nag am na fu fitna di toll al fitnatu ashaddu min am na fu muy toll dee sax a ko gën a yomb moo tax may woo sénégalais yëpp nag parce que li Macky sal di def moo ko tey lem ci jublu moom xam na ni coow gi gën a war a gën a rëy ci Sénégal mooy coowal bis bu ne damay def troisième candidature wax ma troisième mandat parce que du ko am waaye mooy coowal bés bu mu nee damay def troisième candidature mu bëgg nag fexe ba déclencher mbir yi balaa ñuy egg ci loolu comme ça dina am lu mu layoo communauté internationale bi mu layoo ne gis ngeen ñii dañoo violent ñii dañoo lii mun a justifier son troisième mandat génne gendarmerie police xeex am moo tax bis mu ne mu def loo xam ne pour mu déclencher ñu la ñu koy moyetu ci li ma wax nii mooy ñun dañoo bëgg Sénégal te bëgg nañ su Sénégal waree tegu suñu loxo nañ fi fekk Sénégalu jàmm nga xam ne dina yomb defar ndax réew mu xas a tàkk boo ko jotee it soo amee mandat juróomi at juróomi at yëpp yaa ngi xool nooy faye day moo tax ñuy moytu waaye ni mu doon amee ci nit ñu baax ñi bu ñu demee ba xam ni lii moo ci sës dinañ ko def moo tax may woo Sénégal yëpp nag ndax ñëpp xam nañ ni gis nga ñi nekkoon ak Macky Sall te xam ko bu baax seetlu leen bu baax li may wax doo leen dégg ñu wax ci économie doo leen dégg ñu wax ci détournement yi doo leen dégg ñu wax ci insécurité doo leen dégg ñu wax ci contrat yi ñoom suñuy wax benn wax rek la wax troisième mandat parce que xam nañ ne loolu mooy ndeyu mbili gi loolu moo tere waa ji nelaw seet leen rek doo leen dégg ñoom xam nañu xamante nañu seen wax yépp mooy troisième mandat muy fii muy bitim réew moo tax nag ñu ne ñu ngi woo sénégalais yépp man de maa jël sama responsabilité wax ko suñu constitution moo ne sénégalais bu ne am na sañ-sañu buñ ko buggee jaay doole mu jóg taxaw jëngu la résistance à l'oppression est un droit constitutionnel février 2021 ba léegi maa ngi koy wax ñu naan appel à insurrection ak seen waxu picc yooyu maa ngi waxaat sénégalais yi nañu xam lan mooy enjeu yi liñ leen fi wax lépp ci lajj gi Macky Sall lajj ci koom-koom gi ci mbay mi ci njëg yi te yàgg naa leen wax 2019 laa leen nekk joxaat nañ ko réew mi waaye dinañu souffrir ñun ñëpp est-ce que loolu amut Macky Sall bu ngeen ko joxoon téeméeri mandat mënul xamul bëggul réew mi day gën a métti rek 14 mois moo des nag pour ñu jëlaat suñu réew defar ko bu ñu sàgganee ba Macky Sall ëpp ñu ful la ci li mu bëgg jaay ñu doole moom ak groupe bu ndaw bi nekk ci ci ñu ko wër parce que ñu duñu lenn ci réew mi matuñu dara waaye bu ñu sàgganee ba mu ëpp ñu fulla ba am li mu bëggaat kenn ci ñun bu mu ñëw toog di jooytuwaat kenn ci ñun bu mu wootee ndimbal kenn ci ñun bu mu ne ana opposition fu Sonko jaar fu xalifa jaar fu Pur jaar fu Déthié jaar fu Aïda jaar fu Absi jaar fu Maïmouna Bousso jaar euh, euh, fu fu fu keneen ak keneen jaar bu ko kenn waxati xeex bi ñoo ko bokk ñun de accepté nañu jël li ëpp ci xeex bi nañ ñu saaga nañ ñu dóor nañ ñu pexeel pour tëj ñu nañ ñu rey sax ñun accepté nañ ko jël waaye xeexu askanu senegal la dans quatorze mois ñu moomaat suñu réew delloo si réew mi ci wa waa réew mi alalu réew mi des ci biir réew mi ñu séddale ko ci séddale gu màndu jëlee fi ger jëlee fi népotisme loolu soreetul bu ñu seetaan mag yàkkal ñu ko waruñoo ëpp fulla waruñoo gën a gën a bëgg senegal gën a bëgg li bëgg moom moom boppam ak ay ñoñam la bëgg bëggul senegal bu ko bëggoon du jël alalu réew mi yëpp di ko signal waa bitim réew ñu dem ñun nag réew mi lañu ñu bëgg te wan leen nañ wan nañ leen ko ba ngeen gis ko ndax lañuy daj gëm naa ni bëriwul homme politique yu ko fi musa daj bi te réew mi ñu ko jaral soxla wuñu ci tarfata ay kon na ñëpp takku nag waajal na ñëpp takku waajal bu xeex jotee na ñëpp takku waajal ñu xeex ak Macky Sall lu ko mbir mi jaral nañu ko jaral lu ko ëpp parce que réew mu musa baax dafa am génération bu jël responsabilité incha allah macha allah yàlla du defal kenn de lu mu mënal boppam bu doon loolu Sénégal changé na bu yàgg France a ngi baax. dañoo def seen révolution xeex États-Unis ngi baax dañoo xeex am seen indépendance def sécession keneen ak keneen su Macky doxalee dëgg ñun ñëpp ñu ànd defar ba mu rafet waaye bu continuer nekk ci dul dëgg ba pare ne faw dinaa leen jaay doole ñun de ñi ngi wax Sénégal yëpp nañu fagaru ñu takk suñu ndigg jàkkaarloog moom te jàkkaarloog moom nag dañ ko commencé ñu ngi xool nuñ koy commencé ci fan yi amaana dinañ woote un grand rassemblement pour la démocratie et la libération des détenus politiques au Sénégal amaana dinañu lancé waat suñu concert de casserole woo Sénégal yëpp ne leen génnewaat leen casserole yi te ay chaque concert de casserole dina doon référendum ku d'accord ci troisième mandat bi wala ku ci d'accordul génnal nga dóor waaye nañu xam ni suñu jógul suñu bopp am fulla suñu bopp Macky Sall dina dox ci gannaaw sénégalais yi dina forcé waat toog ci réew mi te ni mu yàqee réew ba mu yàqu yàqeet nu ko raw la koy yàqee ñu ngi leen di gërëm leen sant wasalaam. merci